ኦፕሬሽን ያለኻ ምን ደመሶም ደቂ አብላዋ ደቦ መትቢ አርመቶም ኛቦት ቢ ደበሶሉ ደካሪና ቢ ሌካ ምን ደፌሜክ ካረመጣቅ ቢ መናፓሎቶቲ ቲታንጋይ ቢ ቢ ፈርም ጃቦት መምደሶሉ ያለኻ ምን ደሶሉ ፊ ባኹን ፊ መምደኝ ውቱ ማሽን ማሽን ባኹን ደመደም DIY ولا بارسل وا كيري ده بملي شي ما خارج بلله وابور واو كيري معمولا مرقنا على قسطه اه من ده واتي على موجن قاو ومريا فولك شي عدنا نبالي ما ليشان اه من ده ملينا مون ليشان ليشي ما خارج kii mari na mu naa la ah, maa dook muutu fóotu fóotu bee sonn da nga bëgg toog de toog tuuti demi lee waxtaanu foofu dafa naa waxal rek fu mu dee a ba te damay gis ma fii ma toog nga baal ma buur de nga toog man damaa nekk ci monsieur jigéen ah sama jigéen nga may tamit <laughs> waaw nga daan ma tamit nga toog nga gaaw si li ngay def de dégg nga waaw <laughs> ah, xam nga man demee bëgg nga wutuma si liggéey demee sonn dëkk yi si Dakar Njaay dafay metti léegi moom dégg nga seetaan si jigéen bi lii. waaye déedéet xam nga jigéen yu tey jamono ji rek. ah dégg nga ma wutali liggéey si ceekeri patron foofu. <laughs> yow buuru defee mel si ma waxtaan. waaye bañ maanaam génn fii seen ma fii ma toog ak yow. dégg nga may dimbali rek. <laughs> Marie xam nga jikko ak borom du dañ. déedéet day dañu kaay. waa xam nga lan la waa léegi dañu ma dañu na. defal naa xam nga léegi nan la ñuy def. madame kër gi moo bàyyi te moomu yónnoon bitig ba léegi nañ dem kër gi rek kër kaa ngi nee गेलं आणि वाटते ना नक्की ना नक्की वायदे बाय मला लग्न मारे फोन ऐकली लग मारी फिर गाडी बी फोन ऐकली का सहला हो لا إله يا كاي فلوت تلفون يا كاي يا أي نوبة تجاب دوم فترة من في نكه saay saayo man kam laa la man kay kam nga ne buma la gisee na door ba nga kam laa o kuppiide ah ya saay sayo ɓe gona do tan heɓe ɗumen nanda annda mi annda door mi annda mi annda odo wooro odo wooro odo wooro koni odo woora an la tu xaaral ma no min noon mi wayri noddu waa dokk ba di xaaral ma sax kër bi moom mu mere nag moo ko ko bu mu indi ah, kon nga bàyyi madame day bañ ku laal ko koy boo duggee fii ku laal ko waaw waaw <laughs> <laughs> sax <laughs> waaleykum salaam eh, ndigal la nii ko ndigal la tudd ndigal la yow xanaa sa nopp yi baaxul yow ci biir kii ci biti du dugg ah. ki ma doon rabaali ma. léegi demee wutu kootu. mooy tiré yow doo dugg ci kër gi et puis yow dama wuyu patron bi. waaw dafa nànk rek yow doon digal. ah ma def yoroo foofu weccet nga may moom de xam nga rek day jëfandikoo si garab bu fekk rek weccet ak. ci la doom dengetu denge dimbali. yow nga di sama toog. ay nar wan tiitu. eh eh allo. Alo, alo. Omar. Yaay. Waaw ko min tembaani rek. Man la temb, man la temb. Waaw. Waay bon sourpien. Ala, bon sourpien woni woni woni jamkan. Bon sourpien woni sawa ni rek. Eey. Sawa? Ana nagi, ana peyi, mba ñappen ci jam, ana sam an ñoom ay sar ñoom jey naag ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñoom ay juma ñoom ñëpp salimat ab laayeen foofu ah alhamdulilah eh, wuyum léegi noon ƴeew joni comme patron tokos kanan min patron woni patron kono min comme patron tokos min woni patron mon quoi may sen patron léegi léegi sama nag yo jëlal ma ko nga nga mayal ma ko sama pap ndéeg léegi pays nga jël ko nga mayal ma ko sama ay bi bu ñëwee nga ne ko après ma ma buggeel ci déeg après ma tàkku eey gisoo dàll bi dàll bi gisoo ko man xoolal ci suuf rek nga xool dàll bi ba xam gisoo weer yi weer yi weer yi yow gisoo weer bi gànnaar weer bi bi mu tàkkoon nii ci wetu weer mu tàkkoon weer weer bi gisoo Demba yow laay waxal allahu akbar Demba sama téléphone Demba yaay booy wul yaay booy yaay booy tais-toi là dama ne dama ne da nga yebaate ah Demba sama téléphone war nga ko dara man du ma sa morom daf kay fii gis nga bu paa ñëwee naa ko yow xoolal ma la war a dem soog ko bëgg leen te damaa bëgg xool nga génn si bitti dem raxasal ma oto bi ndax dama am rendez-vous léegi léegi